mbokk asalaamaaleykum wa wa barakaatu. tey dañoo bëggoon a waxtaan ak sunu mbokk soxna yi li may jiital kenn sikkul ni jigéen ku sonnoon la ci yu bari njëkk lislaam te dañ koo jàppee woon lu mel ni bàyyi ma amul benn àq ndax dañ daa wax ni mënta dem xare te loo am mu lekk ko te ñoom bi ñuy wax loolu ñu fàtte ay njariñam yu bari dañ daa def ku faatu bàyyi fi doom jigéen kase ñu am ci sa alal dara bàyyi bu ndaw mooy jël lépp ba tey buñ ko masaajur te màggagul dañ koy suul muy dund loolu alxuraan moo ñu ko wax wa idal mawudat suilat bi ayyi dammin qutilat bi maanaa bu ëllëgee danañ laaj liir bu jigéen bañ suuloon ci ban bàkkaar lañ ko reyee ak lim wax ni wa ida bushira ahaduhum bil unsa dalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawaara min alqawmi min suui ma bushira bi ayumsikuhu ala wuunin am yadussuhu fi turaab ala saa ma jaahil yu njëkk ya ku ci masaa am doom jigéen kanamam day ñuul kukk ngir mer ak jaaxle su ko defee muy tàmbalee xalaat ndax da koy téye ànd ak ak doye am da koy gasul toogaat naqim ba tey seeni jabar buñ masaa mbërëng dañ koy génnee kër ga du fa lekkeeti du fa naaneeti duñ booloog moom ci dara ba tey nu leen neex lañ daa fasee seeni soxna ba noppi jalaat ko donte mat na téeméeri yoon lii lépp di ak doyadil gu leer te jigéen manta wax dara ana kan la koy wax ndax booba ñépp a maasa ci loolu waaye jamono yim gën a amee metti mooy jamono yonent yàlla luut alayhi salaatu wassalaam ndax booba góor ak góor ñoo daa sëy alxuraan mi ngi wax ni wajaa ahlul madinati yastabshiruun qaala inna haulaai dayfii falaa tafdahuun wattaqu llaha walaa tuxzuun qaalu awalam nanaaka anil aalamiin qaala haulaai banaatii in kuntum faa'iliin seydina luut alayhi salaatu wassalaam daa am ay gan waa dëkk ba ñépp bokk di waxtaanee luut am na gan yu góor yu rafet ba ñëwee sa kër ga di leen sàkku luut tere leen ñu lànk mu ne leen ñii ñëpp samay doom yu jigéen dañ ñu ne ko amul ci ñoom soxla te xam nga loolu ba tey jigéen dañ ko daaloyantil ak di ko wax demal njaaloo ji ba am nangam ci xaalis indil ma loolu boo xoolee firim wala tukruhu fatayaatikum alal bi xooxayin arad na taxassunal li tabtagu aradal xayaati dunia aman yukrihunna fa inna allaha min baadi ikrahinna gafurur rahim don ko gis lii lépp di coonee jigéen njëkk lislaam bi nga xamee ni lislaam diine dëgg ñëw na la daal dàq mboolem yooyu delloo jigéen àqam léegi ku faatu bàyyi fi doom yu jigéen dana doon te sax sa genn wàll alal lay doon bu dee kenn bu ñu baree am ñaar ñett ba tey ku ko rey ñu rey la te ku ko tey tàbbi sawara suñ borom subhanahu wa taala mi ngi wax ni wala taqtulu awlaadakum min imlaaqin nahnu narzuquhum wa iyyaakum ak xasita imlaaqin nahnu narzuquhum wa iyyaakum bu leen rey seen doom yi te nay doom yi jigéen ñi ngir ragal ak ñàkk ndax maa leen di wërsëgal mboolem mi ma waxoon léegi téere lislaam yi xam ne loolu lépp dàqu na alxuraan fol na lépp ba tey yërëm gi ko diine yërëm xam ne ko doyadi la tax na yonent bi sallallahu taala bi alihi wa sahbihi wax ni laysa ahadun min ummati yamudu salaasa banaatin aw salaasa axawaatin fa yuhsinu ilayhinna illaa kunna lahu sitran min annaar rawaahu bayaaqi an aisha képp ku njaboote ñetti doom yu jigéen wala ñetti mbokk yu jigéen di leen sàmm ak di leen toppatoo ak di rafetal ci ñoom doo dugg sawara mukk loolu fi mu ne bu ko góor ñu ko mën ñëpp defoon jigéen dootul yàqoote incha allahu taala kon lislaam mësta jug di fonk jigéen ak di ko yërëm léegi ana jigéen ana njukkal jigéen ji mu war a delloo lislaam ndax jigéen waxoon naa ni ko lislaam dimbalee kon war naa delloo lislaam njukkal te loolu bu ko bëggee dana ko yomb ndax lislaam laaju ko alal xaraloowu ko bañ na ko ba yenn jaamu yàlla yi da ko ko woyafal ndax yonent bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa wax na iza sallatil mar'atu xamsaha asaamat shahraha wa hafizat farjaha wa ataat zawjaha daxalatil janna rawaahul bazaar an anas jigéen bu dee julli julli farataam di woor weeru koor di wattu boppam di topp jëkkëram daal tàbbi àjjana waaye jigéen deful noonu fàtte na loolu lépp muy mbir mu tiis teewul nag am na jigéen ñu bàyyi loolu xel fi ñu toll ak ñu ko bàyyiwu xel waaye ñu ko bàyyiwu xel ñoo ëpp ndax yonent bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa wax na ne bi mu yoree sawara jigéen la gis mu ëpp fa góor tey janeer waxtu wu ne ku mel ni Maam bu so way juri Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu kii royteef la ci mboolem jigéen ñi ndax laata muy am borom kër mokkal na alxuraan jàng xam-xam moqal dalaayul xayraat daane daana naafila gudd gu ne di teel a jug doonoon ko mën a muñ am na bis muy bëgg a taw borom këram di samp ab bant ba taw ba soobee mu ne ko teel ma lii mu tee ko borom këram dugg ca néeg ba fàtte ko fa ba fajar mu nekk fa borom këram génn di jàpp gis ko mu laaj ko loo fiy def mu wax ko mu ñaanal ko ñaan gu rëy wax nañ ni biñ ko nee dañ lay bëgg a jox koo xam ne ab jàngalekatu alxuraan la daa ubbi ab kaamil yam ci maa kaana muhammadun aba ahadin min rijaalikum walakin rasulallahi wa xaatama annabiyin wa kaana allahu bi kulli shayin alima mu wax ne yonent bi sallallahu taala alayhi bi alihi ak yonenti danaa fa ba jur fa ab yonenti wax nañ ni mook soxna Anta Njaay mas nañ ñi waxtaan soxna Anta ne ko danaa fi jur jant incha allahu taala mu ne ko bu subaa danaa la tontu ci suba ga ba ñuy waxtaan mu ne ko danaa fi jur asamaan te xam nañ ni asamaan moo ëpp jant ndax biddeew ñoo ëpp jant bi te ñu ngi ci asamaante te sunu borom lu rëyal loola yaatu na du rëyul lu rëyut te moo ne was samaa banaynaahaa bi aydin wa innaa la muusiwoon boo seetloo wax gi ko soxna si wax bu subaa danaa la tontu du dara lu dul ay teggin ndax lim ko tontu xamoon na ko bi muy wax ak moom waaye delloonte ay kàddu yu tegaloo daa bari lu muy sabab werante lool te jigéen ñi man ko lool léegi boo seetloo àq yi borom kër daa diis lool ndax yenent bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam wax na ni law kuntu amiran ahadan ay yasjudna li azwajihinna lima jaala allahu lahum alayhinna min alxaq rawaawu abu daawuda jigéen ki gën a rëy àq ci moom mooy borom këram góor ki gën a rëy àq ci moom mooy ndeyam ko sonn jaara yal na yàlla yokki leeram loolu la xam ba tax loolu mu doon def mu koy def ba ba tey suba gu jot daana toggal borom këram ab laax am bis mu am fu muy xëy teel a jug lool tàgg soxna si mu ne ko doo xaar laax bi mu ne ko baax na dama lay bañ a sonal waaye bu muy waaj soxna si togg na fi ab laax ba dem di ko jox fekk mu yëg ca fas wa mu bañ koo dëppaat mu topp ci ginnaaw fas wi di dox bañ àgg fañ jëm bañ dalal ko cib néeg mu dugg fekk ko fa mu jox ko ko mu laaj ko mu wax ko ni mu def kon melo yaa ngi nii yéen jigéen ñi gis ngeen soxna si ni mu gàtteew fan xam ne weesuwul fanweeri at ak lu ko yàlla suñ borom may قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء بأسماء بأسمائهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات النبك إنكم لفي قول مختلف ñu ngi leen di nuyu di leen ziar